A press. De Ndeye Bintou ça va Naïndef, Dieu def Diop Rewmi Julien Padiane. salut les gars la famille Naïndef, salut salut Et vous Stanley, Facebook, ça va Beng Adams, Fall, Kurandongo, Lendef. Adama Fall, jërëjëf koor gi ñu ngi ci kaw Modou Sow yooyu laay ragal ci koor gi kaw mais man koor gi moom dama koy dóor mu daanu de mais attention de Modou ñu ne léegi koor gi ñaari weer la de waaw digal wàcc na quoi euh, séeréer yeeg tukulóor yeeg pël yeeg mbayeen yeeg koor gi ñaari weer la de xam nga man dama demoon aras quoi dama demoon jëli ndigal ji aras yes Adam Fall yeah, général Dabach, what jaajëf you mi général Dabach, maa ngi nii de Cissé Moumay Niass da nga bienvenue les gars partagez partagez de <laughs> gars yi bu guddee dañuy nekk ay bukki sol mbubu be eh, mbubu deru bukki quoi waaw waaw trois mois bis wax nga dëgg de yée jawla yow da nga bëgg gars yi gars yi jooy mbaye ni dañuy jooy de koor gi trois mois gars yi dañuy pleurer Hmm? contrairement kay gars yi dañuy pleurer. yow bàyyi ko nag ñi séeréer yeeg ñeneen ñëpp ñoom seen quoi. ah bon l'appel du 17 n'est pas possible c'est leur de ñoom seen bagage la ñu daal demuñu dikku ñu ngi fi ñu ngi toog di leen xaar xaw ma l'appel du 17 xaw ma l'appel di nangam sangam.

ñun di xeex moo ñu moo ñu jox lii xam nga ñun dañoo judd commencé xeex loolu mooy problème bi waaw pour ñoom pour waa ñàkk jàmm Pastef dafa judd rek xeex c'est extraordinaire <laughs> ñun dañu jugg <laughs> dañu judd rek <laughs> commencé joonante ko kurpeñ yi commencé takarnaase muy waay croisé ak may gër yi doon kurpeñ jël mbëkk tël tekk tël ñun loolu mooy suñu mooy ñun loolu mooy suñu gàllaaj xeex loolu la ñu yàlla nattu xeex rek ndeysaan c'est du jamais vu lire bu judd léegi commencé xeex judd rek commencé xeex ñun dañu judd rek commencé xeex ñun loolu la ñuy la nattuye quoi way gaañi gaañi lay ndeysaan cay yàlla mooy Pastef de Pastef moom vraiment

parce que borom koppar bi Macky Sall téye na ko tëj <laughs> billaay mooy tës barke Nabil Moustapha lii mooy tës waaw di leen nuyu yéen ñëpp di leen ziar di leen ne bisimilah ci waxtaan bi di leen sant di leen gërëm di nuyu diaspora bi yëpp Sénégal yi nekk ci diaspora bi ak ñi nekk ci réew ma di leen nuyu di leen baalu ak di leen baal ak euh, donc euh, di nuyu kilifa diine kilifa aada yi suñu waajur yëpp di leen ñaanal ñoom ñëpp jàmm ak wér ak wér wérle ak wér gu yaram tal ak fekke di ñaan yàlla yàgg leen bàyyi suñu kanam donc euh, ñi ñi teete di nuyu suñu njaboot yi yëpp ah yàlla sàmm njaboot yi di leen baalu ak di leen baal ak di ñaanal maladie yi tëdd ak ñi nekk ci kër yi yàlla ya fëgg seen bopp may leen wér bi ñu jóg ñibbi seen kër ña nga xam ne ñi ngi jànkonteel ak justice yàlla na yàlla may jàmm liberté ñi jënn Sénégal yalla na delluwaat nek deku liberté waaw donc yalla jënnee Sénégal ci situation bu tar bu mu nekk nii nañ ko ñaan ci wéru koor bi fukki fan yi des ni jambar nañ ci tey kurusi yi ñaan yàlla hmm? yalla andi jàmm ci Sénégal yalla mussel ñu ci mosibe ak fitna yalla sam ñu ci non ak pexam non ak seytaane ak ràmbaaj yi waaye ñaan ci yalla fajj soxlay fajj faj aajo yi ci xex ba ñuy xeex ni ci weeru koor bi yal nañu yalla may ndam may Senegal ndam def li gën ci Sénégal waaye yal nañu yalla dénk réew mi inshallah allah ci kattanu borom bi ci yërmandeem ak ci baaxeem ak ci yoon ci yàlla Muhammad sallallahu alaihi wasallam alquran karim waaw di ñaan ñëpp sénégalais yi euh, ngir fa aade yi kilifa diine yi ak euh, suñu maam yu baax yi nga xam ne dañu fi liggéey xéewal ba yàlla feeñu gaz ak ñun ñëpp ngir jëmm ñooñu ñëpp yàlla nañu yàlla dënk réew waaw yàlla jox réew mi borom yërmande donc euh, ñu jublu ci waxtaan bi asalaamaaleykum mbokk yi comme d'habitude ni ñu koy waxee rek euh, yàgg naa leen wax ni fur et à mesure ñiy gën a jege date pathétique bi rek fur et à mesure pression bi di gën a yegg waaye pression bi toujours ci côté ñàkk jàmm la nekk hein waaw ci Ibou Ndafa njabotam toujours ñom ñoy subir pression yi donc euh, moy li nga xam euh li ko lal yeb moy tit ak ragal ak job bi ak jaaxal parce que ñom xamnañu ni jéxal nañu parce que yalla mi joxe nguur bu la koy jox kenn mënu ko téré joxe waye bu koy jël kenn mënu ko téré jël donc euh, kat bu mag ba coon sek neena na bay dem war wërsëg bu dee ñëw kenn mënu koo tere waaye bu dee dem kenn bato mënu koo téye donc loolu la chaque à son tour c'est le tey yow suba sa morom moo tax baax na ci ñaareel bi bu la yàlla defee njiit dënk la parce que yàlla mooy tànn d'abord ci aras mu doog a wàcc ci suuf jaam yi tànn jaam yi exécuté dafa mel ni sëy rek sëy yàlla koy takk ci aras bu matee ñeent fukki guddi rek mu wàcceeku ci suuf keroog bu mu wacc keroog bu mu maté wacc ci suuf ci jàkk bi ñu mayee donc noonu la nguur di démé donc euh, loolu yépp buñ la ko yàlla joxee da ci wara jaamu yalla am ci yërëmande euh jaami donc euh, liggéeyal ci euh sa bop wayé liggéeyal ci tamit yalla bur bi nga xamné mom mo la jox dënkaane gogu nga bañ ko jël def ko gànnaay donc du door julliti di tëj julliti di donc kep ku def lolou rek fi ngay mujjé day leer nañ motax Macky Sall di dal lolou tay ñu toll ni bu doon euh, recommencement Macky Sall bu recommencement comme ni mu ni. parce que amna ñu certitude bi amna parce que euh, nga nañ ko ak ni

waaw ça va waaw waaw waaw waaw incha allah d'accord waaw waaw d'accord d'accord maa ngi lay dégg maa ngi lay dégg maa lay dégg ok ok waaw mhm. d'accord incha allah d'accord jërëjëf waaw d'accord merci beaucoup waaw non non problème amul waaw incha allah mhm, jërëjëf ok alors donc bu fekkente ne tamit euh, loolu mooy li ngeen gis ñun rek euh, tiitange bi parce que tout simplement yorin ba baaxul daganul tegul ci yoon gis nañ dëngate ak jaay doole ak faat ay bakkan ci yorin bi mu yore Sénégal tey dem nañu ba cappaandaw ga euh, tey moom li ko tere nelaw mooy xam ne dina ñàkk nguur gi waaye ñàkk nguur googu mooy su ma ñàkkee nguur gi euh, du ma fu bàyyi président Ousmane Sonko waru fi nekk loolu mu nekk beneen jàngat moo tax ngeen gis acharnement yi ni ay ñoom mambay ñaa nga xam ne euh, moom i tamit euh, xuusma ñàpp la dañ ko diri sikkin la dugal ko ci biir dem na ba ci biir bëgg dellu gannaaw ñu ne ko doo dellu gannaaw yow yaay tànn ñi sacrifier la wala ni sacrifier ni sacrifier Ousmane té sacrifier Mame Mbaye moy mooy gën a yomb sacrifier Ousmane de parce que fi mu ne nii li ci sama xel ak lima gis ak lima ma euh pour ñi mëna téré Ousmane Sonko mu bañ nek candidat euh du baax ci réew mi du baax ci ñom té fa lañu jëm donc euh, man xalaatuma sa jëntuma sa élection am Sénégal sans Ousmane Sonko donte bëre na bëre na tay

te ñoom ñëpp ñu may àndal yëpp képp ku fi am problème rek Ousmane Sonko taxaw na ak yow nokki grenade lacrymogène jël grenade ngir yow du benn du xaaj waaw ci ñu ma àndal yëpp bokk langue politique bi di xeex képp ku ñu fi woo justice Ousmane taxaw na sawet képp ku fi am jafe-jafe Ousmane Sonko taxaw na sawet wet waaye ba ñu gisee xeex bi bii buy xeex ni ak Macky Sall ñoom ñëpp dañu toog bàyyi ko xeex bi moom moo nekk di naan grenade ak ay njabootam moo taxit dignité rek ak honneur rek la ñuy dañuy siggi ci réew mi Sénégal dinañuy siggi waaw dinañ siggi vis-à-vis ak ñun ak suñuy ennemi waaye dinañ siggi vis-à-vis ak ñun ñi ñu bokkal langue politique bi nga xam ne ñoo bokk coalition waaw waxuñu ay ñëw conférence de presse toog di xoolee di wax déedéet Ousmane conférence wul déedéet Ousmane donte dina conférence de presse waaye bu xeex bi takkarnaase ku ci am problème Ousmane taxaw na sawet

mais lañuy and ak mom du ko ngunumu du yéene bu nek seen biir xol parce que ñom buñu ñu Ousmane Sonko dañ koy éliminer té pourtant na xam la am ñep ci ay député mo leen ko jox de gannaaw yàlla ko yonent bi la am ni ci ay maire mo leen ko jox parce que yalla ci mom la ko jaarale mu sëddale ko waaw yàlla daf ko jallalé ci mom jaarale ko ci mom mu sëddale ko parce que bëri na wotal ay député wala ay maire bi doom ñoo tax jëmm ji ñoo tax ñu woote ko yàlla moo ko jaarale ci moom te loolu ñoom dañ ko war a nangu dañ ko war a nangu loolu nag taxaw seetlu la lu ñu gis ci coalition Yewwi Askan Wi pour mu leer ku mu neex na nga mer ku mu naxari nga dem tabax ci jaww ji waaw soxla ñu ay discours ay conférence de presse eh, moo taxit nag pat pataalal bi baax na waaw yàgg naa ko ko wax de mais yàgg naa ko ko wax bu doon teeloon na dëgg nag li ma koy wax kon amal na procès bi ak Mame Mbaye du am parce que li andi procès bi yëpp ak Mame Mbaye Niang mooy conférence bi ak wi Askan mo andi procès bi ak Mame Mbaye Niang mu am fay gars yi dugg ci exploiter ko de procès entre deux citoyens ñi def ko procès d'état waaw pour jéem a ki nga xamne mo moo tere ne law Macky Sall fan la ko amee ci Yewwi Askan bi la fofu la ko amé donc euh, l'histoire toujours donne la jox euh, euh, raison parce que le tol pasteur tolloon nag nga bu demone mom rek ak coalition rek dañuy gagner motax bamay commencer di wax ci coalition ñu dama no tabax bu coalition bi fi fi titi patata tralala li lañ ci won waaw moo taxit nag la mais c'est bien que li am pour mom euleuk mu xolal dina gën a ubbatam parce que xolam mo koy sonal xol bi dafa baax trop laa biir trop kep ku mu gis rek da koy téye ni boppam waaw mom Ousmane kep ku mu gis rek da koy téye ni boppam doomu adama sa le gëna respecter respecté que boppam moo li koy dal di ko dal parce que xol bi la xol bi dafa set la bir waaw mu am yene gu rafet ci doomu adama yi do deug mu saaga nit do deug mu ak mais accepter xeyna peut-être destin la daf ko ni xeyna peut-être fi lay jaar ba jot il faut mu daj mu metti mu daj lu pour jot fu mu egg mom aussi te njàngat la ci biir waaw parce que Macky dajul waaw bay daj parce que Macky Sall que bu grenade yi balaa grenade yi daw rek tàkk rek ci otom bay fa cap euh, euh, M23 ak wa Y'en a marre ñuy dóorante ak police mom dugg ci otom dem na ak Marème Faye mom fu muy tang mom du ko fa fek wa donc euh, xëy na peut-être loolu la ak njuj jaaj bu mu def bàyyi gars di xeex mom mu daw dem loolu moo may donc moo taxit toujours du may te di ko naan c'est un accident de l'histoire politique c'est une erreur politique du Sénégal parce que c'était un arriviste Waouh, le quoi euh, euh, mais tokar ça, face effort parce que mais arriviste un arriviste un accident de l'histoire politique du Sénégal Non, quoi donc ba ligne de ñuy xam ñàkk koom-koom ci ñàkk respecté yel akku yelef doomu aadama moo xam ci téere mi teg ko ci fen ñoom ñëpp képp ku ci toog ci plateau du wax dëkk te yàlla tax lépp ñu ngi koy xool la ñuy wut foofu yëpp mooy jéem a seet naka la ñuy faagaagalee mu jaral leen nguur bi nga xam ne yow moomoo ko mënoo ko joxe kaka moom mooy yàlla moom rek mooy nguur mooy nguuru te moom rek mooy buur ñun ñu fi nekk ñun ñëpp kenn nekku fi buur li nga yor ku nekk la waaye li nga yor dënkaane la app bi dafa jot mu dënk la ko app bi jot pour jël ko mu jël ko te ni mu la ko dënkee noonu la koy jëlee te doo ci mën dara te jox ko keneen donc foofu la ñu toll ci réew mi moo tax ku ci nekk euh, euh, euh, bon xekom fii suma plateau la quoi du yooya may wax nit ñi li ñuy def donc finit dans ni li fi am nous lutax ma def c'est pour que le ñaax patriotes parce Pastef ak sympathisants ñi gëna a suñu tubee taxaw xex buñ ko ci kenn buñ ko ci parce que Pastef dafa judd rek xex waaw defe bi huit ans la warna ans warna ñun dañu dañu judd rek xeex voilà donc ci loolu moo ñu may ba ñu egsi fii bañ nekk ay bañkat parce que bu amoon na nu ñu taxawee rek duñu egsi fu ñu egsi fii parce que ña ko jéem noon def di jéem daan way dañuy jéem a jaay woote paix ak yooyu jàmmaleen tey kërën kërën ñooñu ñëpp dañ leen tëral rendi muy Khalifa sal ak Karim Wade kon ñun bu ñu nangoon loolu kon heure yi duñu duñu egsi fii ci langue politique bi voilà donc Philippe, c'est pour dire que ñun fu ne jig il faut que parce que xex nous ñu jox li xex mo ñu jox ay euh, gis nañu ñaata ñaata ñaata ñaata ñaata ci yi ñaata appel appel ñaata at ñi ngi ci yi dossier yaa ngi ci euh, prison yi ñaata ñaata nit ñaata ñi nga dañ leen ñi appel dossier def nañ sept ans dossier mais Ousmane Sonko appel m'a la rapidement taf taf defu sa deux semaines taf taf appel Ousmane Sonko parce que xamul parce que parce que makissal Macky menace bi la parce que contexte bi parce que Macky

And armée Sénégal na nga jël ses responsabilité parce que a ngi ne xuy seni nop seni beut di gis li Macky Sall di doxal ak justice bi ak soi-disant justice bi donc élection fi ci Sénégal te Ousmane Sonko ci c'est inimaginable tané parce que gisuñu kan mo koy tere nek candidat ban justice bo amul Sénégal amul yone, amul justice injustice mo am Sénégal te injustice boobu munul tere Ousmane Sonko nek candidat ci dem élection yi munta né ben ñaar Macky Sall du bok ci élection yi Antoine Diom du du du organiser élection kon du dossier Ousmane rek mo fi enjeu bi moy Macky Sall du bok élection Antoine Diom du organiser élection yi cette fois-ci les armée responsabilité rôle, xool ak xulaay taalaam xool ndax ñoom armée bi dañuy peuple Sénégal wala dañuy ànd ak famille Faisal ben famille ngir benn nit c'est à l'armée de faire son choix en faisant son choix là l'armée prend ses responsabilités peuple bi des responsabilités, et le monde sera témoin Dieu va juger le rek moo fi parce que justice amul Sénégal amul y en a pas yoon moo amul Sénégal ñoom dañuy sukkandiku ci li nga xam ne du yoon pour pour jéem a écarter un candidat potentiel moo taxit it fa ñu jëm ña yaakaar ni ñoom bokkuñu ci xeex ñu toog lem seen loxo wax na ñoom lem leen seen loxo téye leen seen loxo teewul ñu patriote yi dinañu xeex de parce que ñu xeex moo ñu jëkk dañuy am yëpp xeex moo ñu ko may danañu xeex ak Macky Sall quitte à ce que réew mi tàkk mais danañu xeex bu réew mi exploser. armée de responsabilité ñu xool ndax armée peuple peuple bi lay rey wala Makissal Sall la arrêté foofu la jëm la jëm la jëm et l'armée est témoin oculaire des faits li nekk di xew ci réew mi tey nii bu kenn ne gisuma dëgguma xamuma dafa leer nañ waaw dafa leer nañ armée bu mu ne dëgguma gisuma xamuma dafa leer nañ donc ñoom nañ jël seen responsabilité rek ñi bàyyi askan bi jël suñu responsabilité ñu Macky Sall ñoom ci ñu muy laxa langaamu injustice bi nekk Sénégal Macky Sall foog ne bàyyi ma moom réew mi wala ndey ma moom réew mi wala bàyyi moo gën bàyyu Sénégalais yi wala ndeyu Macky Sall moo gën a sëy ndeyu Sénégalais dina leer fii ci réew mii wax ma du ñu rey de mais Macky Sall du toog déedéet Macky du toog te du éliminer Ousmane Sonko moom moo dul bokk ci élection yi foofu la ñu jëm moo tax à chaque fois damay interpeller l'armée taxawaayam ci réew mi wax naa leen ko danaa du ma def live te du ma leen joxoñ C'est la responsabilité de l'armée pour la stabilité de ce pays-là qui vous a tout donné c'est très important très important et on parle en connaissance de cause parce qu'on ne peut pas imaginer des élections ici sans la participation du président Ousmane Sonko qui a la légitimité, le droit. La Constitution lui a offert, lui a donné les droits total à participer à ces élections, c'est Macky Sall qui n'a pas le droit. La Constitution lui interdit. Alors, s'il veut abuser de sa position pour faire un forcing et le pays explose, l'armée prendra ses responsabilités. Soit l'armée est avec le peuple sénégalais pour l'intérêt du peuple sénégalais et le Sénégal, ou bien l'armée va être avec Macky Sall, une seule personne et sa famille. L'armée sénégalaise n'a qu'à choisir.

dangereux ci diggante bi nga xamné ne réew mi mu ngi basculer ci kaw ñu fal la nga wara jël sa responsabilité ci sa akulaay taala taxaw ci dëgg ci dëgg te yalla tax rek taxaw ci dëgg yow général Moussa Cissé nga taxaw ci dëgg te yalla tax te bayyi xel ni yalla mu ngi lay gis mu ngi dëgg bayyi xel ni bammel mu ngi lay déglu di la dëgg di la xaar bàyyi xel ni sénégalais ñi ngi lay déglu yow la ñuy seet la xaar ba xam ban taxawaay ngay am waaye nga bàyyi xel ni ci biir armée bi yow le général Fall vous les généraux vous n'avez pas le monopole vous ne détenez pas le monopole non non non vous êtes que des gradés c'est votre chance mais tout le travail c'est la base qui le fait les hommes de troupes ñokoy liggé hommes de troupes, yoy ngeen nak ay patriotes d'abord première chose hommes de troupes, yi ñep tout d'aller ko depuis colonel lieutenant colonel commandant capitaine lieutenant sous-lieutenant adjudant adjudant chef adjudant sergent chef sergent caporal chef caporal première classe deuxième classe lu ko dalee yéen ñëpp hiérarchie boobu yëpp jëlee ko depuis ci généraux yi la wax général yi sax yéen ñëpp li seen devoir moy ngeen xol seen ak yalla d'abord te xam ne yàlla mu ngi leen di xool ci situation ci benn réew boo xam ne 17 millions de sénégalais ñoo fa nekk yéen yàlla mu ngi leen di xool di leen déglu yéen leen xool bee xam seen taxawaay lépp li ngeen di xalaat yàlla xam na ko déjà mu ngi toog di leen xool ba xam yéen ban taxawaay ngeen war a xam ndax da ngeen di nekk taxaw ci dëgg wala da ngeen di taxaw ci fen ci naa fekk wala da ngeen di andi fitna yéen ñëpp mu ngi leen teg di leen xool ngeen bàyyi ci xel. waaye bàyyi leen xel ni sénégalais yi le peuple sénégalais est mature ñu ngi leen di xool yéen peuple boobu li ngeen nekk ci conditions yi ngeen di am peuple bi moo leen ko teg pour ngeen liggéey ci loolu pour ngeen aar leen peuple bi moo leen di fay sénégalais ñoo di fay yéen ak Macky Sall yéen ñëpp sénégalais ñoo di fay ci deretu sénégalais ñakku sénégalais ngeen di dund ci deretu sénégalais ngeen di dund sénégalais yoy ñoo leen mettre dans de très bonnes conditions jox leen ay salaire jox leen ay auto jox leen ay jumtuwaay jox leen ay bureau jox leen ay fi ngeen di dëkk jox leen jël jël loi jox leen loi yépp ngeen am privilégié bépp homme de tenue bi bu rombé ñi respecté ko loolu yépp askan bi jox na leen lépp lépp li war ay avantage ngeen dem mission ngeen am ko xaalis bo boo demee mission ci euh, le plan international ñu fay leen xaalis boobu tout as ngir askan gannaaw yalla ak yonent askan bi peuple bobu mo leen ko jox te peuple bobu tay mo tollu ci jafé jafé bu tar ngir ben nit bakkanu ben nit bëgg-bëgg ben nit wala tax tout un peuple basculer ci kaw ay deret du tuuru ay bakkan di rot te yàlla toog fële aras fam tok xam ko yéen ngeen xam ko fofu lañu tollu l'histoire retiendra duñu arrêté du ko wax de parce que man j'ai été militaire je sais lan vocation militaire euh, euh, un militaire lan moy soldat njëriñu armée ci réewul lan la lan moy taxawaayam koku dafa leer koku duñ ci tergiverser parce que l'heure est grave y a ngi gens fi ngeen Il y a justice amul Sénégal injustice mo am Sénégal yéen a ngi toog bàyyi injustice bi di dox ci contexte boo xam ne da ngeen ne way non le peuple le peuple il faut peuple bi jóg pour mën armée mu jóg déedéet ma waxaat leen ko léegi ak contexte yi nga xam ne buñ ci tolloo armée warul xaar peuple bi jóg ba ay bakkan di rot c'est-à-dire il faut devenir il faut être une armée honnête républicaine mais il faut être des hommes honnêtes ni nous, ni ragal ni nous, anticiper nous, anticipation nous, muy am nous, eh, nous, parce que vous nous nous, nous rek suñu on n'est pas prêt pour dal à askan bi yow yow kon parce que nous xam nous li nous sommes la attention am ngeen ci par responsabilité am première erreur bi nga ne armée moom ngeen def te war leen ko def loolu di seen les prérogatives de l'armée nation Beaucoup ci les prérogatives d'une armée républicaine À mon fi ci mois de mars ci rotu et je salue de passage le général Tin, mais je le félicite kooku moom saa julli ñu parce que joxine na gëddëm askanam peuple respecte na askanu Sénégal taxaw na fa muy taxaw askanu Sénégal ak fa mu war taxaw rôle rôle ba mu war jouer jouer nako mais bu fekkoon yéen le général le chef d'état-major des forces armées bi nekkoon ci jal jamono bobu yow jeun nga def nga taxaw sa taxaway kon li don dee du am du am nañu waxante deug ay nit bu ñu nekkee dañu waxante deug mais c'est parce qu'il y a défiance du côté du haut commandement de l'armée sénégalaise vous avez laissé Jean Tine gérer cette crise là seul mais bonjour leen Bakane noonu bakkan parce que le plus il y a de bakkan Bakane ci gën mais là l'armée a failli alors Mota à chaque fois je tire sur la sonnette de d'alarme en tant qu'ancien militaire xam li ci naka la lan moy sen devoir sen prérogative ah. moo tax dañ ciy wax parce que fofu lañ jëm ci yoon bobu lañ jëm ngeen bëgg ko ngeen bañ ko fa lañ jëm ngeen xam ko ngeen ñàkk ko xam fa lañ jëm parce que ka fi nek xam na ni jéxal na ragal na dem parce que xam na la mu liggéey ba mu yore réew mu ñu mu la mu def ci weer ko baaxul dara na ci baax lor moo fi nekk lor askan bi te dafa war a rendre compte loolu nag tax na fitna juddu alors fitna boobu nag juddu taxaw ne këtti na jon day am de parce que duñu ñu nangu élection Sénégal te Ousmane Sonko du ci bokk dañuy bëgg li mu wax mu leer nañ te suñu 330 millions yooyu teewul ñu tere dem élection léegi dañuy teg un milliard la ñu teg ci temps wala un milliard deux milliards sax ñu teg ko ci temps bracelet nu mu demee ni ci deux milliards lañ jëm de man financière la ñuy teg sénégalais ñoo ko yëkkati teg ñu jàkkaarloo ak ñoom waaw donc chaque jour que Dieu fasse nous allons tirer la sonnette d'alarme pour l'armée sénégalaise ngeen xoolaat sen taxawaay lolo, bëgg nañu euh, euh, euh, pour mu leer parce que dëgg que ci nguur gi ñi yore réew mi amuñu dëgg Macky n'a jamais eu raison ces juges n'ont jamais eu raison la justice sénégalaise n'a jamais eu raison ça il faut que ça ça soit clair

ni créer armée force de sécurité et de défense l'objectif bi tax ni créer ko lan mo tax ni khalat bi tek armée force de défense et de sécurité ci rew ak lan la ci jublu lan moy mission bi lan moy objectif bi est-ce que force de sécurité et de défense boobu dañ ko créer pour mu maate population bi pour mu dal ci rew wa rew ma askan di len fitinal di len gundu khatal di len fagagal di leen rey wala dañ ko créer pour mu aar rew mi ak wa rew ma ñaari question yi ça tourne autour de ça maanaam da ngay nekk ci dëgg soit armée bi nekk ci fen rek ñaar rek mooy am foofu lañ toll de parce que lii xew ci douze ans yi musul xew depuis Sénégal tubaab bi na yeewi Sénégal te yeewi gu ko depuis tubaab bi yolomal le bi ci Sénégal xew parce que du yeewi Sénégal mu ngi ci mais yolomal bi bam yolo la xew musul am 12 mois 12 ans yi 12 ans yi les Sénégal liñ fi feu et la Sénégal du dund fi sur fitna fen sur fen ray sur ray, catch sur catch, satch sur satch complot sur complot ay fen ay mag ay mag yu dog ne ñom ay kilifa lañu toog ci télé di fen yore ñi takkal la ndombu tànk ci dëkk bi nga yor ko toog ragaloo yàlla rusloo yàlla gëmoo kenn ragaloo bammel sa du dem fenn amoo jom amoo fulla amoo fayda ñàkk jom amoo benn himaan toog ci télé di fen di sos da taal réew mi extraordinaire xam nga li ma gën a yéeme tey mbokk dama gis li nga xam ne <laughs> non c'est bi ko me sama xol dafa toy Sonko junior la gis Sonko junior <laughs> boy doomu Ousmane Sonko Cheikh Cheikh Sonko Sonko junior la gis mu def une vidéo mais dama xol boy bi barke salatul fatiha ci ci sama xol dafa toy Boy bi dafa dafa tank historique Macky régime 12 ans le gosse a canalisé l'amour. mu wax tu fi wax li nga ne bi ko Ousmane Cheikh Junior non il faut door exposé bi non Voilà. non daf ko que c'est-à-dire dafa régime Macky doom ji da ko futi taatu neen yaram neen xaw ma ndax gis ngeen vidéo boobu booy bi am na chaîne chaîne YouTube am na daf ko futi taatu neen yaram neen taatu nen la futi non lu mu def lu mu won Macky Sall c'est-à-dire bu doon euh, bu doon ñoom xam naa Amadou bi nga xam ne mooy Baye Dof Amadou sal bu gisoon tey xale boobu toog wax li nga xam ne même baayam moom Macky Sall baayam jar na xaru bu dee gor la day xaru waxuma la Amadou mais Macky Sall bu doon Macky Sall gor la day xaru loo ko si la vidéo ba nga fi xam na bi nek am ñu ko gis ngeen duglu boy bi da ngeen di yëngu ci yàlla waaw am na ci commentaire sax ñu koy tel tel père tel fils nous déglu lu wax vidéo wallahi oui allô oui waaw non non non non ok en direct c'est super dafa yéemu sax dama toog ma xool ko ma ne non yàlla rek mooy buur wallahi yàlla rek mooy Karim nga xool comportement Amadou waaye Amadou taxawaay Marième Faye taxawaay baayam Macky ak xale bi taxawaay gamu am ak baayu xale bi taxawaay gamu am nga xam ne yàlla rek mooy buur jub rek moo baax ak dëggute c'est extraordinaire cest à kenn mënu fi wax tey ci wàllu dëgg ni réew mi di demee ni Sénégalais di dundee ni politique bi demee ci réew mi ba nga wër ndomb xale bi amul parenthèse loolu boy woné c'est-à-dire kéwél du tëb dom ji beut waaw barke Nabil mustafa donc li ñuy dund ni yëpp ci injustice la appel procès appel appel procès d'abord ci appel bi <laughs> daanu ngeen ñen ne déedéet ñu taal réew mi mam Mbaye Niang Mbaye Prodac Mame Mbaye by product ba ngay def réunion bi ci digënté yow Mame Mbaye ñam product marem faisal makissal ak euh, ak Farba Ngom ya ñent lan ñent bobu ma Mame Mbaye bobu procès bi sa da jugé guñu dé atté guñu dé nga dóor mas arrière lonk lonk mas arrière trottal de Google arrière pour la soit ñi géré la la wala ñi éliminer Ousmane ban nga arrière rek reculer rek parce que amuñu ben dossier pour Ousmane à des ne procès la entre Ousmane mais ñun dañ ko transformé def procès état pour ñu Fagagal Ousmane so arrière yo la fagagal yo yow Mame Mbaye Niang menacé ko mu delu ci wat. Ñom ci dynamique bobu la ñu ne mais dañu fàtte ni lay dogal mais sénégalais ñi ngi fi de parce que buñu amé jangat ci nit ci diir biñu ubbi liste bi nuy électorale diir biñu ko def nga jenné ci férié yi ak yoy ak yooyu la ci bindee bëriw mais teewul li envahir bureau inscription yi dafa yéemu les jeunes sont déterminés primo votants yi dañuy déterminé mag ñi ñëpp goor jigen mag ak ndaw sénégalais yëpp dañuy déterminé bindu ji rek biir Sénégal bi ci extérieur fu ne gars di daw di tej une heure de temps la ñuy ñëw di këran këran coow li kur loolu yëpp ay signe la benn deuxièmement même seen appel bi sax

parce que Macky Sall ak Marème Faye Sall dañu langamu ci procès bi ñom fi lañu mëna a jaar ñi na pour écarter Ousmane bu bu bok réew mais yeen a xex ak sénégalais yépp yeen a xex ak intérêt sénégalais il faut que sénégalais ñu xam ko même yeen wa APR militant APR yeen yeen yeen yeen tay posture bi Macky Sall jël ak Marème Faye Sall posture bi ñom Mambay Diagne jël baaxul ci yeen yeen wa APR ku wax deug te yalla tax nga bëgg réew mi nga fonk réew mi nga gëm sa bopp nekk nit ku jub ku ragal yàlla di wax dëgg tey la te xam ne nu mu yàgg-yàgg di nga sangoo juróom-ñaari mètre précaire dem ci biir bàmmeel te yow rek yaa fay nekk xam ngeen ni réew mi fa mu jëm ñii li leen tax a jóg du intérêt réew mi ak seen intérêt mais intérêt moom Macky Sall ak Marème fay Sall ak njabootam mais xam ngeen ni du dëgg te gor du tifli maraat foofu yéen xam ngeen ko ni kii xeex pour intérêt Sénégal ak sénégalais xam ngeen ko leer na mais nag bu fekkente ne yow sa biir xol xol bi dafa ñuul lëndëm moo nekk ci xel ci xol bi du leer xel mi lëndëm yuur bi lëndëm lay daw ci biir deret du deretu gor huile moteur bu dee mooy daw ci seen deret fak nga gumba parce que

armée erreur bu mu defoon ci mois de mars fexe leen ba bu mu leen dalati parce que gannaaw yalla ak yoonte bi sécurité sénégalais yi bakkanu sénégalais yena ko yor donc bu len ko sagane ngir khalis bi len jox bu len ko sagane ngir sen intérêt crypto personnel ngeen faagaagal askan bi ngeen toroxal sen askan rew ngeen bokk ci ñi nga xam ne ñoo cakat cakate bakkanu doomu aadama yi bu kere ga yomal xiyaam di ngeen ci am règlement de compte te peuple bu fippee fi bu ak fippee fii yan dooleel mën a téye askan bi xëy na di ngeen rey de mais askan du arrière loolu na balaa ñu ciy egg léegi ngeen def comme Jean Alfred Diallo waaxu dem fekk Macky Sall ci pale bi na ko tegal lépp ci suuf soit là tu wala nga jóge fi quoi yow nga dem mooy gën réew mi tàkk bakkane dee Ekonomi biten lwa chikina ou, at nan biyep mbwa moun yo. Lolo, yu fok moulè. Yu fok nyan kham kou. Tè nè? Dè gen yi degi ti plato yi nyan, wey!

parce que tout bi monde est beaucoup manipulé. mu nangu rek ci moom la Macky Sall la fait fii nga jox ñu pétrole bi loolu rek la toogal fii nga jox ñu gaz bi loolu rek la toogal fii nga jox ñu fer bi loolu rek la rayal sénégalais yi loolu rek yenn armée Saint-Cyr lañ leen formé en France vous les généraux là Saint-Cyr lañ leen formé en France donc da nga ñuy da ngeen exécuter suñuy droit donc vous êtes formaté là-bas alors donc vous allez tuer vos peuples mais donc gis général français bu ne ma dem le peuple français doo gis armée française bu dem attaquer peuple français ray ko mais yéen sénégalais yi il faut ngeen ray sen peuple bi comme ça ngeen jël euh, ngeen Macky Sall jël pétrole bi ak gaz bi ak lepp jox ñu ñun tuba bi Europe yi français lolu moy contrat bi nga xam ne armée lolu lañ leen bu ko def lo parce que bo leen demee ci les 11 accords yi teunk France ak les pays colonisés moo tax Mali fipp na Burkina fipp na Centrafrique fipp na Paul Kagame xam nga Ouganda ma Rwanda ok Guinée Conakry mi ngi mi ngi balancé ak américain ni nii Sénégal nag ñoom Côte d'Ivoire mi ngi foofu Sénégal nag loolu moo ko tënk yenn armée Sénégal am leen droit dara ñun armée France mo am droit L'olo waral armée français ci biir suñu réew yeen Sénégal am leen droit tek ben industrie ben entreprise société industrie buy exploiter ces ressources du transformer sur valeur ajoutée man France ma am droit Nous tek sama entreprise ma exploiter ses ressources ma transformer sur valeur ajoutée li baax ma sama réew li bon ma bay ko ci yeen ba Nous ko waaye seen militaire amuñu droit dem beneen dëkk formation man France bala leen di loolu moo nekk ci onze accords yi tënk France ak Sénégal système bi foofu la commencé balaa système bi di nekk personnel waaye yéen Sénégal yéen France seen Sénégal balaa ngeen di am contact coopération ak beneen dëkk man da ngeen may tàggu man France d'abord ba ma ne waaw d'accord na su ma d'accordul am loo droit dugalante ak benn réew

Tu oses accorder la banque? Waye bi bi man koy teugal sama rew ma jox ko wala ci sa sa tek, dang banque mu garantie nga tek ko garantie d'abord 50% pour cent ci sa alal koy garantie garantie ba pare légui yow 50% yi le ñu seet nag ban maa lay woon politique bi ngay def pour nga mun ko dépenser te du ëpp léegi boo soxlee xaalis cinquante yooyu nekk foofu moom ci lay tibb mu lebal la teg ci intérêt yaa ngi dégg bu baax li ma la tegal la ci intérêt ci sa cinquante pour cent yi ko jox mu def ko ci banque boo soxlee mu tibb ci ne la lebal naa la waaw yenn waa appel déglu leen de pour que xam yeen li ngeen li ngeen fi ngeen fété sénégalais ak ñun ñi bañ C'est bal la fonds européen xam fonds xam fonds français de développement la petit pata gis ngeen la jeunesse africaine gis ngeen nu ñu euh, Macron Nous ñu ko humilier si la marmite est sale et dégueulasse la burkinabèse là si la marmite est sale et dégueulasse on ne va pas y manger là-dedans Macron face à la jeunesse africaine donc yooyu yëpp moo ñu plombé te France amul benn recherche T'es un homme ci fait jafe Macron la responsabilité de l'Europe la souveraineté de l'Europe face à la politique américaine ci Taïwan entre conflit Taïwan Chine Macron mi ngi pour conscientiser leen ñoom américain ñu ngi dóor xeer parce que politique xeex bi américain ñoo ci am intérêt union européenne du ci gagné dara bref une affaire la ñu dellu si si ñun fii mais c'est boobu da lay lor du dem ñoom ñoo am plus de trente fanweer ak juróom entreprise yi nekk Sénégal tubaab bi français ñoo ko ma tey Sonatel mi ngi noonu gars yi ñu ngi jooy maa gis

jog nañu taxaw pour dog loolu te loolu du fi am ñoom ñu ne Macky Sall bi dinañ la dooleel nga rey askan bi waaye armée Sénégal yow it da nga ciy dugg nga rey askan bi parce que yéen ñëpp ñun ñoo leen formé fi Saint-Cyr ci suñu droit ngeen ne te armée français du dem dal ci aw ci peuple français bi de mais yenn armée Sénégal africain yi armée Sénégal lii ñuy réglé nii il faut que yéen ngeen ñëw ànd ci ne leen cel ngeen bàyyi euh, ñii ñi rey sénégalais yi donc il y donc une armée pour wan le peuple a compris Les nag du embarras du choix non une armée amu un embarras du choix non vous avez le devoir de choisir la mission de choisir qui va qui va s'orienter qui répond aux normes des prérogatives de l'armée sénégalaise dans le cadre de l'armée-nation, armée républicaine. C'est une armée qui protège son peuple contre l'agresseur qui peut venir à l'intérieur du pays, comme Macky Sall qui est un agresseur, mais contre l'agresseur de notre pays qui vient de l'extérieur. C'est ça la vocation de l'armée. Point barre. Nous l'avons. Première mission de l'armée, c'est assurer la sécurité du citoyen et du peuple sénégalais et du Sénégal. Mais pas pour assurer une personne. Et le peuple ne se lâchera pas faire. Parce que nous avons 300 ans d'esclavage ñu nous ñu euh, euh, euh, dévaluation homo, néocolonialisme dévaluation mondialisation nous rek quoi du système de Sénégal Sénégal nous ne damay jël suma man sur ma suma bob. nous sur ma banque définir suma politique comme yo tubaab bi français bi comme yo américain bi créer suma xaalis samay ressource amna ressource yu may dooleel pour me mun créer créer suma xaalis man Sénégal fofu lay taxaw pour def ko maa moom suma pétrole maa moom suma gaz ma moom suma zircon maa moom suma or ma mom suma géej maa ma suma trois cent trois mille heures au soleil yalla man la ko jox man mo war ci liggéey be fak be keur du fay facture kër naaj bi boko ko nga exploiter ko

carte nga yor carte bleue di nga am compte am sa carte bleue doto yore ci wekit ñi tax ñi lay jam pak di la ray dedet carte carte bleue nga carte sénégal bu nek carte bleue nga yi ay carte carte bleue nga yor sénégal bu nek carte carte bancaire li moy sa xaliss yow rek ya xam code bi gars dem jëndee retiré libéral free ngeen ne déedéet yéen waa APR ak militaire ñenen ni non non non il faut que pour or bi continuer di dem Suisse il faut que or bi yéen waa APR ak militaire appel ngeen ne y compris gendarme ak armée ngeen né déedéet or bi la bi il faut que tubaab bi continuer di ko yóbbu. buy nous ñu couper internet coupé le courant nous mu un avion, ngeen fait un avion avion or sénégalais bijoutier nous un grand d'or le bijoutier sénégalais mënu Il am a or bi ñu produire ci Sénégal ñaata tonne or ñoo dem Suisse ñu jaay sur le fixing de Londres ce qui ci or le fixing de Londres lañ koy un Sénégal ñaata la nga am ñaar fukki teen vingt neuf puits de pétrole deux mille vingt trois vingt trois bi ñi leen naan yaa ngi tourné ci ñaata milliards cinquante milliards vingt neuf puits de pétrole ñi lay wax ni yow li nga war a am cinquante milliards c'est-à-dire il faut que sénégalais ñi xam ne ñu la gannaaw yàlla ko ñun rek ñoo a taxaw xeex pour suñu réew bi mu tegu ci yoon ba bu nekk dootoo demati dugg avion dem ñi lay def jaam Europe wala Libye wala ñi lay def góor jigéen Libye yan waa APR bala ko xamul fofu lañu xam politique bala muy bax ci doomu aadama muy am nga am ci ndirign nga tire profit ci rew bi ci ndirign bi mais tay xol leen rek jàngat leen sen leader yéen wa APR barki démb ñom ñep ay baadoolo lañ dañu dox be sen testene yep xar wex tal tanki ñu futi passu taxi sa amuñu ko accidentellement ngeen ñoo ak sen parti Cette partie, votre parti n'est pas structuré même parti bi sur légalul légalul légalul xam nga lu ñu yóbbee ci lii donc par force war day jóge fii mais xalaatuñu kan lañu fi un accident de l'histoire jóge fële ben tokaar quoi tokaar sa baax parce que day mais un accident de l'histoire un arriviste opportuniste bu bon yoxoosu xam nga traite ci traite bi yoxoosu dem def tournée wër ndombam ñëw accidentellement me folle fait que quatre gorni, dit une nañu ci ñun opposition ku jënd la ñuy jàppale la discours ba muy wut réew ma discours bu mu amoon ak ba mu jëlee réew mi discours bi changé na de c'est-à-dire jikko wut du bokk ak jikko am kat loolu ngeen dund donc bu mu jàmbi dañ koy dog élection fii te Ousmane bokk ci munta am yéen a xam li ngeen di def seen magu yooyu ak seen sagaru soit disant xaw ma euh, espèce justice la xaw ma putain une justice pour vous quoi mais pas une justice pour le peuple mais pas une justice envers Dieu ngeen dem ngeen def seen mascarade boobu ba pare peuple bi wàcc xeex ak yéen dina am ñuy dee mais armée na jël responsabilité parce que man su ma nekkoon ci bopp armée bi kon heure yi réglé naa problème Macky Sall Barké Nabil Moustapha réglé naa ko vite fait bakkan parce que parce que règle ko yalla la defi la kirtim la koy def kirtim ñom ñep ma gradé ku fi la kirtim organiser élection yi sommes ñibbi ku gagné rek la ok gagné na d'accord nañu et ma nekk sentinelle armée nekk sentinelle di le contrôler lii armé. Il armée am une responsabilité pour rëy ci sen diggante ak yàlla waaye ci sen diggante ak un bàmmel mais ci diggante ak sénégalais mais ci a ak histoire et le monde entier a les yeux braqués sur le Sénégal c'est extraordinaire ne croyez pas que les gens ne suivent pas hein. Ils suivent attentivement ce qui est en train de se passer au Sénégal. Ça, je vous le dis. OK, gagne, vous pouvez appeler. Hein, Kubuga Wote, nga Wote. Wow. Pardon, on a exposé Biag. Kubuga Tout le monde en on les yeux braqués sur le Sénégal. Ça, que vous le sachez, vous ne le sachez pas, vous l'acceptez, vous ne l'acceptez pas, c'est ce qui se passe. Maintenant, la responsabilité de l'armée sénégalaise, c'est là où nous allons comprendre si l'armée sénégalaise est contre le peuple sénégalais ou bien si l'armée sénégalaise est contre euh, une personne Macky Il faut que ça soit clair. Hein. Il n'y a pas à tergiverser. Et, et arrêter cette, euh, cette façon de dire, oui, euh, il faut que le peuple se lève. Non, non, non, non. Le soulèvement du peuple, il y a des conditions. Dans un contexte pareil, on n'attend pas. C'est-à-dire, c'est le haut commandement qui prend ses responsabilités et anticiper comme l'a fait Jean-Alfred Diallo. Voilà les hommes d'État, la trempe de Jean-Alfred Diallo. Amadou Belali, Dassosa, ces généraux-là, hmm? c'est des hommes. Rahan, Abdou Selignan, Challenger, Nyonyou voilà nous, nous, président Yaboulen. parce que nous savons que lan le rôle militaire ce que c'est qu'est-ce que c'est l'armée Nous savons nous, lan mooy armée ci biir réew mi ak armée euh, euh, euh, pour art citoyen bi lii yëpp la fen rek a mais armée qui a ngi 17 ans da ngeen seetaan de banque yi boum non vous savez l'armée euh, euh, a une ligne de conduite euh, ñi ngi sénégalais oui vous savez l'armée a une ligne de conduite et l'armée attention ne nous mêlez pas dans la politique non cette technique de communication là technique que tu ci quoi parce que on a vu on est témoin des faits ils ont enlevé un adjudant chef de la gendarmerie un commandant de brigade assassiné l'armée n'a rien fait la gendarmerie n'a pas communiqué. Et l'armée, quand je parle l'armée, l'état-major des forces armées, la Dripa n'a pas communiqué. Ils ont enlevé un sergent-chef, ils l'ont assassiné. La Dripa n'a pas communiqué, l'armée n'a pas communiqué. Il n'y a rien qui est fait. Ils ont enlevé un ancien militaire, garde de sécurité, bodyguard, tué, assassiné. Tac. 14, 18 morts. Tac. Tous est là. Alors c'est pour cela, à chaque jour qu'on sort, nous allons taper sur l'armée pour vous dire, attention, nous ne sommes pas des demeurés. <laughs> On sait ce qui se passe. Alors prenez vos responsabilités. Soit vous, soit vous tous, vous êtes des hommes, vous l'assumez, ou bien vous portez euh, euh, la paille, vous laissez à Macky porter le pantalon. Il n'y a que ça. Mais il n'y a pas de justice au Sénégal. Que les gens arrêtent. Et cette, ce, ce disant oui, nous allons attendre Non, vous n'avez rien à attendre. Parce que ce qui est en train de se passer au Sénégal, c'est malhonnête. Ce n'est pas la justice. Il n'y a pas de justice. Oui. Et ce n'est pas bon pour le pays. C'est vilain pour un pays. Et ce n'est pas bon pour le disciple de Dieu. Mais pour le disciple de Satan, oui. Que chacun prenne ses responsabilités. Si l'armée ne prend pas ses responsabilités, le peuple prendra ses responsabilités surtout. Et maintenant, l'international, Peut-être euh, l'ONU va envoyer des militaires, des, étrangers pour venir sauver le peuple sénégalais et que l'armée sénégalaise qui avait cette vocation, cette prérogative de le faire, va croiser les bras. Hmm? wala taxaway naa fekk ko ci ci n'y iblis ak de ak rambat ak na ñaar a am Je ne suis pas de ne bëgg nañ ko pour pour mu ci fi nga jëm ndaw maximum possible dem leen ngeen bindu allez-y vous inscrire commission buñ le dof N'y ngeen ah oui, il faut les casser la gueule, ils vont inscrire par force, les assiéger. Voilà. dañu tollu fi nga c'est-à-dire xam nga sommes si euh, ñom ñom Assane Diouf communication technique de communication bi ñom Assane Diouf yor motax legui léegi nañ ne xaaral ñuy jéem a raxas réseau mun leen raxas réseaux sociaux yi pas possible parce que sénégalais yëpp ku gis li sénégalais jën na pour dem bindu ji nga xam ne communication bi jàllal na hmm? ngeen xam ne communication bi jàll na donc Ousmane appel ou pas sa yoon ci reste toi tranquille il n'y a pas d'appel. Ça, c'est de la mascarade. C'est du charabia. C'est du charabia. Il n'y a pas d'appel. Reste chez toi, tranquille. Dans le calme. Nous donnons le parti, baillez-le fofu, nous nous doxal Loolu rek moo fi am Aliou loolu rek moo am fii fulla nag xeex bi dañ ci ànd ak fulla gis ngeen xeex bi Euh, faites une chose faites une euh, faites une une remarque remarque actuellement ci plateau télé yi bàyyi leen xel gaañ ci plateau télé yi def leen analyse ci plateau télé yi débat bi contexte débat bi actuellement ngeen xool nu mu mel dafa soppi de coppite am na parce que fenkat yi réew yi les caam ak ñoom son borom ndel boobu di toog seen web suma ngoon guddi di fecc di fen ñooñu ñëpp ñu bëre tëj nañ seen taat parce que mérité wu ñu respect du ñu mérité wax bu sell parce que jëf yi salte la ñuy jëf wax koo xam ne day toog suma ngoon guddi bëccëg di fen di tuumal ay nit di fen di jël fen diko tek ci daru jambour da ngay fen 8h 8h 1 minute deug taxaw koku mérité wu ñu jox ko cër déedéet jaj fi ku fi dee ak sa bammel mérité wu len ko mérité wu len ko sénégalais ñu wara am fulla ak fayda jeunesse bi ma gis ni wallahi gis ngeen ni ngeen jenné ni

jënd ay grenade non conventionnelle Turquie dem jënd ay arme de répression renforcer lépp yar yàlla ma nga toog aras toog di ko seetaan quoi muy def waaw moom jàpp na ni moom ragal gu mu doon sénégalais ragal boobu la ñu am déedéet ñu ngi ci dernier virage gis nga gor boo ko toppee ba mu sës ci miir rek mu jaay la bakkanam muus boo ko toppee ba nga tëj néeg bi mu jaay la bakkan sénégalais dinañu jóg jaay la bakkan force Ousmane day candidat Non, non non non charabia la charabia dem ngeen def ko ci quoi ku rek xam ngeen ni ay nit ak la parce que quand imposé xex nak mu accepter yow Macky Sall da nga imposer askanu Sénégal le peuple sénégalais da nga leen imposer xeex ñu accueillir la ak fierté bras ouvert nangu nañu xeex bi nangu nañu xeex bi parce que bu dee yow Macky Sall rek rek yow sa jëm yow kondom yow ak Ousmane Sonko rek ñi tëj la ci néeg taatu neen nga fay jóge ak biir bu daw yéen ñaari yow yow Macky Sall yow ak Ousmane ñu ne leen kalaat ci biir néeg bi yéen ñëpp. ñepp la wax yeen ñepp nak ku mu mun a doon yéen ñaar yooyu buñ leen tëjee ci bir neeg ak Ousmane Sonko parce que taatu neen ngeen fëjee ak bir bu daw kooku dama bëgg pour mu leer allo bu yàllu allo wo wa sawa wa sawa num mu eh lam sawa sawa sawa

na population bi jóg en masse ñu dégager ko loolu rek la kese. Mm-hmm. parce que même les opposants là su seen Sonko Sonko moo nekk opposant mais si des yëpp su des complices. waaw yow ma ne ñu bëri li nga wax noonu wax naa ko fii ñu bëri dañuy bëccëg dañuy nekk ak moom kër mais seen yéene yëpp mooy Ousmane warul dem nekk candidat. voilà. waaw loolu mooy seen ñaan ñoom. Mm-hmm. donc fu xeex ka jot ma. ah ji amul recul amul dem xeex benn yoon. amul benn choix. fii xeex rek moo fi nekk. wallaahi wallaahi dernier dernier round lañ nekk si dernier round lañ nekk. waaw. waaw. dernier leen lami ñi teg budget merci ñi teg budget deux milliards. ba pare takk suñu ñi dee. ci mois de mars du ñu gën a gore wallaahi wal azim. non xeex la xeex rek. amuñu de solution parce que Macky Sall mayul porte de sortie Macky Sall une porte de sortie parce que bo déggee ñu ne Macky Sall way su matin du dag non da ngeen ko feugul koy arrière. force arrière. Macky arrière. partout au Sénégal jeunesse moo gën a mobiliser wu si si si seen siège foofu ñëw gën a mobiliser sax instruction bi loolu mooy titre fu mu toll nii loolu tiit. am na benn centre centre d'inscription yëpp jeunesse bi boo foog xool kay jeunesse bi ñoo fa nekk jeunesse bi ñoo fa gën a mobiliser wu loolu moo tax moo leen tiital de moo leen tiital rek bu ko yëkkati procès woo. ah na yëkkati procès bi jeunes yi jënd nañu. pour gars yi ñoo koy duma ak procès am yëpp. voilà yow mooy que ñoom nañu focus nañu focus rek. Mhm. ñëpp dem bindu ji. Mm-hmm. bu si jotee ñëpp génn si dem def taxaw daal si procès bi ñu xool ñu da lëmb si si procès. ok mun dara si moom waaw. sama kanam rek wax dara ok. Euh, numéro baa ngi nii. Euh, Ndaw numéro baa ngi rek gis nga jeunes yi jënd noonu pour ngeen di def seen i tappale yooyu pour jéem a atte ñàkkal jeunes yooyu boo leen fii jëndee benn condamnation jeunes yooyu ñooy ëlbatiku jàkkaarloog yéen xeex léegi nañu xool responsabilité armée fan lay jógee ndax armée day féete ci peuple bi askan wala armée day féete ci Macky Sall yow ak sa famille ak sa jabar ak say doom famille Faisal. Sall oui allo oui vous allez bien? Oui, oui, oui, oui. Ça va, ça va. Est-ce que mun nga y nga euh, sa ni de Vous allez bien d'abord. Oui, je vais bien. Je vais bien. Et toi? Oui, ça va. C'est Faye, Faye, Kër Oui, Faye, oui, vous êtes en direct, Faye. Donc, euh, d'abord, bon, je voulais, euh, je voulais amener ma contribution par rapport à ce qui se passe dans le pays. Oui. Parce que moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est que ce gouvernement-là Qu'est-ce qu'il veut maintenant hmm. Non, je demande la question. Qu'est-ce que le gouvernement sénégalais veut faire Ils veulent brûler le pays ou bien qu'est-ce qui se passe Mais c'est la question que tous les Sénégalais se posent. Hein. Ah, parce que vraiment, vraiment, vraiment, moi je demande, je demande le peuple sénégalais, parce que j'espère bien que jusqu'à présent, présent, le peuple sénégalais n'est pas encore sorti pour faire face avec ce régime-là. Mais Peut-être dernière minute. Mais cette fois-ci-là, les gens prendront notre responsabilité pour faire face avec ce régime. Ok. On va poser, on va on va. Actuellement, actuellement, ce que je, ce que je voulais dire, vraiment, moi j'ai le cœur meurtre. Et je me suis vraiment honte de ce pays. Parce que les dirigeants, les dirigeants comme ça, hein, ils ne veulent pas vraiment, vraiment, parce qu'ils savent ce qu'ils qu'ils ont commis, les erreurs qu'ils ont commis dans ce pays. Ce sont tous des hypocrites. Actuellement, la population sénégalaise, ils n'ont qu'à se lever pour faire ça avec cette dictature et ce régime de criminels on ne va pas accepter cette fois-ci-là. Ils n'ont qu'à s'arrêter. Ils n'ont qu'à s'arrêter. Et nous, on est là. On ne se cache pas. On est là. Donc, on va prendre notre responsabilité de faire face avec ce régime-là. Ils n'ont qu'à nous. Ces gens-là, ils nous amènent. Ils n'ont qu'à s'arrêter ces choses-là. Le pays n'appartient à personne. Nous sommes au même pied d'égalité. Nous sommes tous des Sénégalais. Et moi, je ne me cache pas. Oui. Mais ces gens-là, ça doit s'arrêter. Qu'est-ce que ces gens-là veulent Qu'est-ce qu'ils veulent mhm. Ils ont là pendant 12 ans. Hein? Ils ont là pendant 12 ans. C'est des incapables de diriger ce pays-là. C'est des minables. Hein? Qu'est-ce qu'ils veulent maintenant Ils veulent sacrifier, sacrifier le gars. Ils n'ont qu'à laisser le gars tout tranquillement. C'est l'homme qui c'est Dieu qui décide. L'homme prévoit Dieu dispose. Mhm. Mais il ne faut pas prendre la place de Dieu. C'est des êtres humains comme nous. Ils n'ont qu'à céder. Hmm. Et que moi, je demande à ma Mambaïna, il n'a qu'à, il ne, il, ne, doit pas faire, il ne doit pas être, il ne, il, ne doit pas, il ne doit pas être euh, l'agneau, du sacrifice. Mais il est, il est déjà. parce mhm. actuellement, le Sénégal, ce gouvernement, on l'a sacrifié. Mhm. Et que tôt ou tard, ce régime va quitter. Ok. Il va rester avec nous. Inch'Allah. Inch'Allah. Les jeunes Sénégalais ils n'ont qu'à se, lever. C'est ça avec ce régime dictatorial-là. Et moi, je, vraiment, je m'arrête là. Ok. Euh, Dama, vraiment, je suis vraiment content envers toi, quoi. C'est ça que je voulais, je, je, voulais dire, quoi. Merci beaucoup. Merci, Djamba. Ok, mon frère, et continuez. Ok. Alors un pays là. Nous devons, nous devons réécrire l'histoire euh, donc de ce pays. Parce que accès vraiment, euh, c'est une insulte. Quoi. Qui sagala, c'est une insulte. Ça, mon, ça, qui sagala, li moy saga. C'est-à-dire Macky Sall ne respecte même pas l'être humain, le Sénégal, le citoyen sénégalais. Macky Sall ne respecte même pas l'être humain. Waouh! Ndeysaan ñu ngi lay woowee Brésil Ousmane la ñu ngi lay woowee Brésil. waaw waaw waaw Ousmane na nga def Brésil yéen yéen a ngi seen jafe-jafe yi quoi ci bindu bi Brésil. waaw waaw man man amoon naa carte d'identité quoi mais gars yi ñëw ñëw ba léegi de. non gars yi ñëw ñu dañ ko zappé ah dinañ ci wax. waaw ko zappé quoi moo argenté ak ah. moo argenté ñëpp kay waaw. waaw. ñu ngi ziar bu baax di ñaanal ñëpp jàmm. ñu ngi nangu ziar di la ñaanal jàmm. am daal xeex moom man daal li may wax. Hmm. moom mooy bëgg lu yomb bi daal nag jeex maanaam moom faaw ñu xeex ñun réew mi dafa am xeex dong moo koy jeex. Mhm. Sénégal mun ta dem mënut a tegu si yoon te xeexuñ maanaam dëkk bi même bu ñu dëkk bi jox ko tey naa ko donc te man gëm naa ne da daa du jeex rek moo moo koy jeexal. xeex rek moo koy jeexal. waaw waaw koo wax ne dañoo bëri fitna na daa bëgg lu yomb. ah ca Sénégal da nga gis koo xam ne day xëy nekk nekk milliardaire. waaw toog muy dox. toog muy dox vraiment te loolu war a jeex ci am réew loolu ñu nekk nii loolu lii moo lii moo fi lii moo amoon ay ay quatre-vingt-six deux mille waaw lii moo fi dañoo xeex lépp jeex mu jeex maanaam dëkk mënut a baax tànk xeexul ñay ñay dee dee ñay dund ah Rwanda Paul Kagame gisuloo gaa dañoo xeex mu tegu ci yoon waaw bilaay lu leer nga wax mhm. am réew am réew mënut a dox tànk nit ñi xeexuñ mu ngi yow Macky Sall moom Sénégal Macky li muy def Sénégal musul am Sénégal maanaam jël ay nit leen def ay jàmm loolu musul am Sénégal musul am nit ñi yow échange sax liggéeyoon noonu ma yow mu nekk période boo xëy sa téléphone bi ngay nekk fitna googu mu teg nit ñi weeru koor bi nit ñi war a woon dox ci jàmm xam nga la di sa tay la di sa bii guddi leetu xat bi mooy la di sa guddi leetu xat mm-hmm. loolu musul am Sénégal musul am Sénégal yow guddi leetu xat bi ñi tal leen lu ay leetu xat bi jaamu yàlla nga indi leen fitna ah mais nag nga ñëpp leetu xat ci mbedd bi rek leetu xat guddi leetu xat gi waaw na ko ñëpp def ci pono yi ci biti rek parce que Sénégal nag Sénégal moomuñu Sénégal nag moomuñu Sénégal Sénégal mm, ndaye mag yàlla moomu ko bàyyi Macky Sall moomul ko maam Macky Sall moomul ko Sénégal bu doon doon ñoom du ñu doon loolu Sénégal dañ ko doon ñoom bokku ci doon. non bokkuñu la suñu yéen maan jàpp day defar Sénégal rek moo tax ñu fal ko. bokkuñu mu teg ñu goo xam ne ñun mun ñoo woo si jàmm mun ñoo lekk si jàmm ñun ñu ne si réseaux sociaux chaque jour Sénégal lay woon nan la bàyyi liggéey def nangam ak nangam mais ñun moom moomu réew ma quoi loolu daa mun nekk loolu mun nekk loolu nag moom mënut a wéy quoi na ñëpp jug na ñëpp jug ñu mën a joxe joxe ñu mën a cotiser cotiser ku mënul dem cotiser ku mën a wootee rek tëj seen plan dem lii warul jàll te bu jàllee de barki rasulullah te bëgg génn Sénégal dem Mali waa dem benn mais lii bu prochain mu jàll xamal na yow jàmm ngay dem Sénégal maa ngi jégalu baax maa ngi jaar ñëpp. jërëjëf ñu ngi lay jaar jërëjëf merci di la jëggal donc loolu moo fi am parce que Macky Sall comportement bu mu am nii ak fa mu jëmee réew mi bu ko Ablaye Wade defoon moom du toog donc fii

xeex bi dugg boîte vocale barke alquran karim xeex bu boobaa nañu xool nag taxawaay suñu soldats yi ndax dañuy ànd ak Macky Sall moom rek ak jabootam walla dañuy ànd ak Sénégal ak wa ak sénégalais yi mbokk yi li xew Sénégal nii barke alquran karim billahi wallahi wal neexul kenn mais minorité sommes au Sénégal en otage minorité Macky Sall respecté citoyen sénégalais wa ne ñom seen ñom ñep citoyen parce que ñi doon tok dëmb di nan warul am troisième mandat du nek candidat tay ñom ñoo tok ci télé di comment commencé que ci mom Macky Sall bind na ko livre mais mi nga parce que lu tax parce que pétrole jënd na gaz jënd na zircon jënd na def nañu seen nju ñaaj yooyu yëpp te ba tax na du dem bu leen fàtte ni jaay na fi suñu pétrole Franck Timis bu demee ba doomam di jël ay milliards sénégalais dem di jënd ay clochard nday dof ay clochard ay agresseur mu am xale bu ndaw bu toog teg débat ci diir bu gàtt mu tënk lépp lu ñaaw lu bon ci réew mi kon Sénégal bu fi xeexul rek wallahi jàmm nga ah oui parce que li mom nga dee mo gën dund li parce que saga la Sénégal yëpp goor amu fi wiyelu wiyelu Alô? Muna nek coopération pego dem mat par bongo Alô? wow Daba. Awa kay ki bëggoon dem Mali dem gis ay ci ngay. Daba. wow Daba google google google entre nous google Waaw maa ngi ci direct bi. Waaw d'accord waaw. maa ngi ci direct bi. alors donc euh, mbokk yi fii la ñuy am parce que dama am réunion léegi réunion bi tàmbale na moo tax ngay dëgg ñu may naan da baax dugal dugal loolu yëpp pour xeex bi la rek Sénégal jëm kanam mu baax Sénégal jëm kanam mu baax donc gis fi ñu toll nii bu fi benn Sénégalais jéem a gëm procès procès amu fi procès amu fi Macky Sall moo bëgg la xatu ak ñom ñu bon ñi ci ginaaw ay faux procès pour jéem écarter Ousmane procès amu fi verdict ba ñu mën se téye fii kenn du ko respecter fi élection fi may tejé élection sans Ousmane Sonko Sénégal fi kenn xel xalaatu ko te armée na jël responsabilité ok ñi joxante rendez-vous ba suba incha allah di le sant di donc euh,